di wax ne ci jamono jii nga xam ne mbas mi dugg na ci àdduna dugg Afrique dugg Sénégal ba egsi suñu dëkk bi euh, su fekkee ne ministre de l'industrie di Moustapha Diop mi di suñu xarit euh, daf fi ñëw tey ji dafa jaadu ñu dalal ku benn euh, ñaareel bi mu jëm si di seet si suñu beneen xarit di Ibrahima de Fall bi da di ko seet si fii ci NSTS ba pare li ko fi indi bokk ci luy yëkkati Thiès parce que Thiès dafa am ñaar yoo xam ne Euh, fii di NSTS te nekkoon STS bu njëkk ak raay bi ñaar yooyu ku leen bàyyi bàyyi Thiès ku leen jàpp jàpp Thiès donc bu fekkee ne tey moom dafa ñëw fii lëkkaloo ak moom euh, euh, pour yëkkati NSTS mais rawatina ci jamono mbas mi ñu nekk pour defar fi ay masque masque yoo xam ne fii lañ koy defaree ñun loolu duñu mën lu dul rafetlu ko loolu nag ñu ngi ko ciy gërëm tey jaarale ci moom gërëm goo xam ne président de la république moom moo ko moom ndax xam nañ ñu ci jamono bi nu nekk ak ci fi jëm am ay masque farata la. secteur industrie bi euh, mi ngi ci jamm mi ngi dox bu baax amna na gu yaram bu baax buñ koy waxee ko wara waxé parce que tay bi ni do di ñew euh, au pouvoir gis nañ ne euh, indi politique industrielle Sénégal leur woon ba tax na tay ñu def ay études andi ben lettre de politique sectorielle de l'industrie, bo boo da fay définir carrément feuille de route bi ñu fekk également ci le plan Sénégal émergent tay bo dé xol bo démé tay lu melni fi rek euh jam ñaajo gis ngeen fait euh, ak Aprosi le parc industriel de Diamniadio deuxième phase également également récemment d'un euh, euh, ngi ko signé c'est à hauteur de 60 milliards de francs de de francs CFA Nous avons également ci agropole yi a trois agropoles l'agropole nord l'agropole centre et l'agropole sud te loolu pour les pour faire les pertes récoltes parce que chaque localité ak say potentiel potentialité agricole yi nga xam ne am na fa ñu jël ko tey boo demee lu mel ne Casamance tey soo dee xool anacarde ba ak mangue ba ak banaan ba ma nga fa di yàqu hmm. donc dañ koy jël dem carrément dem ci transformation pour defaraat ko nga jëm son zone centre soo fa demee tey muy Kaolack di di Kaffrine di Diourbel mais également di Fatick soo demee tey gis ngeen xorom sa pose cuir meew ma yëpp ma nga fa bëri fa tey dafa ne loo xam ne dañ ko war a transformer te gis nan euh, boo demee aussi côté nord bi soo demee côté mooy côté Louga Matam Saint-Louis boo demee foofu ceeb baa nga fa oignon yaa nga fa lépp horticulture baa nga fa lépp nga fa donc tey te gis nañ ne ci euh, mbas mi pratiquement pays producteurs yëpp dañoo dem ba nga xam ne dañu ne léegi seen seen dëkk yi produit yi nga xam ne seen dëkk soxla nañ ko dañ koy interdire ñu exporté ko kon tey feebar bi wane na ne luy wax bay dunde moo war a am ci réew mi donc il faut ñu xol li nga xamné population yi bëgg nañ ko ñukay bay ci réew mi transformer ci réew mi pour ñu mën a am. Euh, agropole yi li ñu wara duggal bari na parce que wax naa ne la euh, agropole sud bo xolé tay lu tolloog pratiquement 60 70 milliards dugg na fa te tay xaar ngi xaar la contribution du secteur privé 101 milliards donc so boole lepp boko ko day nek 160 milliards te lolu agropole sud kese la ñëwaguñ ci agropole centre ñewuñu ci agropole nord te yoyep pratiquement montagne dañuy daldi dañuy euh, presque tout am également deuxième phase parc industriel wax 60 milliards yo xamné également mi également programme hôtel industriel bo xamné ne Sénégal fépp ci département mais pour développer les petites et moyennes industries selon les potentiels yi nga de dëkk bu donc vraiment pour wax leen na industrie bi ah mi euh,